la j'espère que les cool et que tout le monde se porte hyper bien. Alors merci et bienvenue sur notre chaîne YouTube Kenza 221, mais bien sur la chaîne des news, des plus belles chroniques, mais aussi la chaîne qui vous fait vivre les meilleurs moments du game. Donc, jusqu'à présent, vous vous êtes pas encore abonné. abonnez-vous et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pas ne permettre euh, de vous vidéo automatiquement ngeen jot signal bi sans pour ngeen di sonn di def ay recherche ou quoi que ce soit alors yi tey nag dama ñëw indi leen benn groupe de rap bu tudd BMZig tey ci ñoom laay ñëw wax surtout seen dernier vidéo intitulé Kill mais avant ñu ci wax expliquer détailler à la fin de la vidéo bàyyi leen yéen tamit ngeen mën a joxe seen xalaat ci commentaire yi parce que vraiment dinañ gis lépp ci biir sound bi talent taaru mbind clash technique lépp dinañ ko ci donc nañ àndandoo xoli un peu sur la vidéo ñëwaat léegi léegi let's go seen lama bi comme dus ku ñëw dugg moom amuy table yu bett pour fekk seen bium foog double M foog ADSL MPK foog AK Suki SN seen wax jee bëri doon defe naa daa si gémmi ngeen ne di taasu jaari ndaar yi mën a yées gém bi yéen ne ceen ndaar rakk def leen ndànk naka adduna daaku du tax nii tax toog ba balaa ngay gëm kenn gëmal sa bopp dañu gëm suñu bopp xam suñu bopp xam fu ñuy jëm xam alors gars gis ngeen tuuti ci vidéo bi c'est intitulé Kill ñii nag ñooy le groupe MBZIC donc pour ngeen mën a xàmmee gars yi premier couplet bi Général Diouf moo ko dóor deuxième couplet bi Gaye moo ko dóor et enfin le troisième couplet MBZA moo ko dóor man nag euh, ça me fait énormément plaisir gis boo yoo xamante ne dañoo former seen groupe bu bopp bëgg a déggoo def seen yëfu bopp car léegi groupe yi du durer ay détails yu ndaw ñoo koy tas ay affaire de gel wala ay affaire de de sama waaye xaw ngaa rey kii ci sound bi affaire yooyu noonu su couple moo dàkk yéen a ma gën a xam détails yu sew yooyu mais booy moom am naa yaakaar ni seen groupe bi dina durer bu neexee yàlla bon seen sound bi nag euh, bit bu neex lañ ci utiliser. par contre je me dis ni ak lu bit bi neex nii sound bi mënul na gën a dóob mënoon na gën a nice parfois booy dañuy dal ci bit bu neex mais problème bi moo ñu def ci lu neex loolu rek mooy doon problème bi man nag sound bi lu ma ci gën a neex mooy refrain bi parce que refrain bi booy dañ cee wane technique genre am njaay joxal jóg jox jàllale ko ci jàllo lañ def kii day dóor jox moroomam pare jàllale ko keneen ki ak changement de flow yu ñu ci wane dafa vraiment nice. léegi bu weesoo loolu ku dóor premier couplet bi dafa may jox nit ku bari wax moom ngeen baal ma nag ba leen xoolee sound bi da cee feeñ trop sax ba pour nga comprendre lu muy wax foog nga déglu ko plusieurs fois et boo xoolee couplet doo ci gis moo clé li ma ci capté mooy foog a 2 MBK ak Akatsuki SN boo dégloo sound bi couplet zéro moo clé moom dafa ñëw directement dal ci kaw gaay soxla wu rafetal. li ma doon gën a neex mooy bu ñëwee pour clash booy mu wane skills wane flow bu nice wane ay punch et tout ay baar yu xóot gars yi buñ ko déggee mën a xam ne ah booy bi kat am na talent bu nelaw ci moom mais dafa ñëw rek wax ay wéeri wéeri ay fëkk aadasale dem yoonam fëkki àkkale rek pare ci deuxième couplet bi moom ki ko dóor moom la ma couplet mu gën a marqué parce que dafa indi talent wane technique en plus mayul bit bit dara Le bi compliqué compliqué compliquer na ko solution et vraiment j'ai adoré sa façon d'écrire gis naa next level yum ci d'or, te loolu rek taru mbind la day neexal saw. mais nak lal na ci ki nga xamanteni ne ni moo di parce que nee na mënul jommal jinné. xam nga ni fi lépp logique Cap borom lëndëm ci kaw ba ci souf ya ki euh, yow lay waxal mais traité nako façon façon wax bu salte bu nekk Lune dal wax nako cap. troisième couple bi kuko dor dóor bon électroclassique moo tax bit bi jaaxaw koo jaaxal dafay drapé di yéeg di wàcc ci kaw bit bi mais day bind nice boo ko joxoon bitu classique lay gën a wone boppam car bit bi foog nga am technique dëgg pour mën cee tegu mais lu ko ci gën a yitteel moom mooy sori lu parce que laal na sori nee na ko ngay duul naan sori du nit laal na sori moom moom sori lu moo koy moo ko yitteel yéen a ma gën a xam donc gis ngeen on a essayé d'expliquer et de détailler les gars, s'il vous plaît dem vidéo bi donnez votre avis ak tamit seeni conseil à vos claviers bayna les alors gars li lii lañ longue avec votre Kenza 221 n'oubliez pas de vous abonner d'activer la cloche de partager mais je suis de liker comment le je suis sur Instagram sous le nom de Kenza l'officiel Ma page Facebook bien sur Kenza 221, sur TikTok Kenza National et sur Snapchat Kenza Diallo. Allez, puis c'est love la mes frères. Gros bisous à vous, restez bien connectés. À la prochaine. Love you all. Portez-vous bien. Bye bye.